Gracias. voilà fi mu ne nii Guy Marius Sagna ngi doon yëkkati loxoom ngir rek laaj ab ker ñu jox ko parole mu wax. voilà euh, accordé nañ kii di Guy Marius Sagna mu wax ñu déglu ko rek ñu ñëwaat ak yéen. Euh, fi ne nii dañuy am jafe-jafe pour déglu li nga xamante rek moom moo di kàddu yi parce que son bi dafa am problème. voilà bos yi ñoo seerewul parce que fi ne nii marché wul parce que gars yi bu ñu waxee ni duñu mën a déglu kàddu yi nga xamante ne rek ñiy laajte parole il est mu dem ba ci kanam voilà Guy Marius Sagna mu ngi noonu ñu teewlu Guy Marius rek ndax am na lu mu bugg a wax ginnaaw bañ ko accordé li nga xamante rek moom moo di parole. waaw ñu ngi koy jéem a jox micro bi su ko defee li muy wax ñëpp mën koo teewlu en direct. ba léegi micro bi ça Euh, micro bi normalul fi mu ne nii fi ñu nekk nag ak fi mu nekk dafa xaw a sore lool guy on a on a du mal à entendre ce que ce qu'il nañ ko jéem a changer beneen micro rek euh, su ko defee rek ñëpp xam li muy wax voilà problème mu son la ñu am noonu comme niñ ma koy daal di voilà. ak article 110 ak article 118 ak article 51 du règlement intérieur war na tax ñi nga xam ne ay membre gouvernement lañu fal leen nekk ay député te waxuñu comme ni ñu waxee ne président Ablaye Wade du fi siège ba remplaçant bi nekk fi waxuñu ne ñoom démissionné nañ ci diggante bi ñoom déet ñu toog fii jàpp ne foog leeral kon nag gars yi préparé tool bi nga xam ne moom ak xaw ma kan bi ñu ko contrôle xam naa ñu waajal man maa leen ndax règlement intérieur mais mandat bi def na tool baa ko incompatible baa ko am na xëy na dafa solo kàddu yi ci règlement intérieur ci làkk réew baa ko incompatible bu ma ko doon faram fàcce mooy ci euh, misaal boole yàlla ak keneen assemblée bi dafa nekk waruñu boole député donc les membres du dialogue sauf que leeral cinq ans cinq ans place am ñëw ñaareel bi mooy balaa ngaa ñëw fii madame la présidente fii lañu distribué ay këyit léegi nag daal amoon na ndaje bu tuuti amoon sëriñ waxu bi ñu ndaje boobu lu mu joxe mooy président fii la ñu joxe ay ay enveloppe def si ay bulletin parce que bu Sénégal bu ñu wax ñu voté pour suñu élection présidentielle législative ak locale du sax nii la ñuy voté kenn du leen dugalal ay bulletin ci biir ay enveloppe naan leen dem leen après ngeen génne bulletin xam nga ñu bulletin yi ñu joxe un defuñu woon xamuñu kenn ñoo nekkoon ci saag bi donc waruñu woon distribuer ay bulletins te def ñu woon appel nominatif pour xam ñan ñoo nekk ci saag bi ñaareel mooy xamuñu lu nekk ci bulletins yi ñu distribuer donc moo tax ma ne bulletins xamuñu lu nekk ci bulletins yi xamuñu bulletins yi ñuy jox waa ndax bulletin candidat o Benno mu ngi ci xamuñu ko dama koy Sall en tant que député Yewwi xam lan moo nekk ci seen enveloppe. ma ne bulletin yi waa Bennoo yor kenn à part ñoom ak yàlla kenn xamul waa PDS waa Wallu kenn xamul à part ñoom ak yàlla ñu nekk ci seen ci seen bulletin. Sénégalais yi dañuy ragal ñu ne ñeenti si kàddu gi Mari Sagna Euh, li si fës rek euh, dafa daal di ñaawlu euh, act bi nga xamante ne rek ñi nekkoon si biir salle bi def nañ ko rawatina nag waa coalition benn bokk yaakaar di distribuer ay bulletins yoo xamante ni moom jàpp na ne sax kenn xamul lu nekkoon si biir bulletin boobu noonu waaye tamit ñëwaat na si article 110 ak 109 si li nga xamante rek moom moo di si assemblée bi rek ngir doxal li nga xamante rek moom moo di yoon rawatina nag ñu retiré ministres yi nga xamante rek ñoom ñoo jot teew si assemblée bi euh, ku si mel ni rek Abdoulaye Seydou Sow ku si mel ni ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Euh, donc voilà moom Guy Marius Sagna ah. voilà Bart. voilà Barthélémy dafa demandé parole tout à l'heure mais jotuñ ko ko rek accorder mm-hmm. voilà parce que fi ne nii côté bi ñu taxawee nii aussi. Euh, day xaw a métti voilà kii di Cheikh Abdou Bara Dolly tamit yëkkati na loxom voilà Cheikh Abdou Bara Dolly yëkkati na loxom ñu xool alors kii di Guy Marius Sagna d'accord ndaka déjà ndaka nga jàngatee kàddu Guy Marius Sagna yi ñëwaatee di ñaawlu si euh, li nga xamante rek parce que euh, la notion d'incompatibilité si mbir mi. non boo gisee ni gii ni mu waxee dafa bëgg Sénégalais xam lu leer parce vote bi. normalement vote euh, enveloppe yi trois trois bulletins moo ciy nekk mais ñoom duñ ko joxee dañuy ñëw rek joxe enveloppe bi xam nga dafa gi li mu wax neex na dégg parce que enveloppe yi kenn xamul ban bulletin moo ci nekk bulletin yeew yi moo ci nekk wala bulletin benn moo ci nekk wala bulletin wàllu moo ci nekk mais ñu génnee bulletin yi présenté ko euh, député yi moo gën a logique waaw mais nañ leen déglu ba xam nu muy demee accord mu nekk euh, lu am solo euh, comme ni mu ko rek junjee fi mu ne nii rek ñu ngi demande ay parole voilà Barthélémy Dias mu ngi taxaw di xaar Barthélémy Dias moom mu ngi taxaw di xaar waaye gis nañ